nataal ñaar ak ñaar bi Jésus nekkee ci suuf nettali nañu ne xew-xew yu bari ngir jàngal ñu yoon yi yàlla tëral jàngal nañu ni ñaari yoon a am ñépp dañoo jël yoonu moy wu yaatu wi ñun ñépp dañoo moy ci suñu maam aadama ci moom lañ ko royee mi yàlla njëkk a bind def nañu bàkkaar ci kaw jëf yu ñaaw ci kanamu yàlla Jésus nee na dañu war a wàcc yoon wu yaatu woowu te dugg ci yoon wu xat wi ñuy jëme ci yàlla ngir dugg ci yoon woowu dañuy rëccu te tuub suñuy bàkkaar te nangul Jésus mi ñu daajoon ci bant bi lu tax du ngeen wax ak moom ci seen xol waxleen ko ni yow yàlla yaay ku màgg ki ku sell ki xam naa ni ab tooñkat laa maa ngi seede ni tooñ naa gëm naa ni Jésus dee na ci bant ndax man te fay na ndax samay bàkkaar maa ngi ñaan nga jéggal ma soppil ma sama xol raxasal ma ko def ma ma bokk ci say doom bëgg naa topp yoonu Jésus ñëw dund ak yow ginnaaw su ma deeyee jëf yow yàlla amin